ku ca bu jëkk ba te yëf yi saf sap waaw maa ngi tooñ soxna si waaw loolu waykat yi de waa wàllu ñëw nañu waaw <laughs> ñëw nañu waaw waaye ñëpp ñëw nañu waaw ko defee kon du toog waaw mag ñu baax ñile le ñoom góor gi Abdou Pen waaw moom it ñañu tollool rek كنير فم ورا تخو متخوفا واو واو بو فرانس جوتي ريك ما واخ لينكو الكفار لا والمنافقين لو دغ جهاد اي فاصون الحرب خدعه الحرب خدعه لولو موي لا hein, est une sorte de double jeu. La guerre est une sorte de double jeu mooy alxarbu xudaa waaw ba tax na kon nag waaw taxawaay rek ak fayda am na koo xam ne na xam ni góor rek a taxaw ci kanam bu yoree fetal it ay ca bu yoree lacrymogène it ay ca ñun ñu ngi yor souvenir yu bare maa ngi koy fàttaliku ca bu mu jëkk ba te yëf yi sap te ñoom tubaab yi ñu la yónnee ci Serigne Cheikh ni ko ñun tubaab yi waaw fetal dafa bokk ci sunu élément yi gën a moo tax boo nangoo sunu fetal rek tukkal nga àdduna mu ne ko ñu ñëwoon nag doon leen ñaan ci sunu digganteeg yéen rek yii ci def yëpp sax casque yépp yëpp mën ngeen ko téye waaye ngeen sarax ñu rek jox ñu fetal yi walla lool Serigne Cheikh joxe ordre ni nañ leen jox fetal yi yi ci des sax nañ leen ko jox ndax li ñu bëgg ñu xam ko xam nañ ko keroog ba ñu ñëw pour arrêté sima inspecteur yi ñu duma woon te nangu seen tëwki wooki ma nga ma garde ba léegi waaw lu tax na kon nag xanaa faydaa jotagul rek waaye bu jotee ñu may ñu jàmm nag waaw waaw que tooñ baaxul waaw li ñu def ci taarixu Sénégal c'est la première fois fekk néew bu ñu suul ba noppi nga ñëw sulli ko man loolu mosuma koo gis moo tax biñ naan sëñ Moustapha waxul dara man ni lu may wax senegal yëpp a ngi wax waaw Sénégal yëpp a ngi wax xanaa Iran ndaw mi ñu ci attaqué sax moom mu ja wax ñu di ko attaqué lu ne ñu wax ko mais moom it mu am faydaam waaw pank dëgg la waaye wax na dëgg am na yoo xam ne boo nekkul pànk rek àdduna tukki wax na fi lu ne kenn attaqué wu ko waaye nekk la tudd Moustapha Sy rek ñëpp jóg boo defee kon nag xam naa Moustapha Sy di neex na ci seen làmm yi هما نك لنيو تود حلون بكل لسان ذكر شيمتي وطيب بلسان ذكر شيمتي هما نك بوبولا ولا بنين لا مصفاسي مصفاسي مصفاسي هندي مصفاسي دومو لنك doomu jaamur la nag waaw ndeysaan ndeysaan fa góor ga toll woon ndeysaan ah te ñoo amee Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane suba Cheikh Tidiane ngoon kenn mayu ko jàmm hmm? walaw turika alqata leylan la naama du dëgg لك وحيوان ديسان آه. لو تريك القطا ليلا لنام ديسان يكبو بنين سون امين تكن يرمكو بي جوي يفكو كو تشيكو فنيتر بي موتوك دي جوي اي شيخ تيجان ديسان يرمكو رك وصحنا سيدي مالك مدف قصيدة واو هاي جلا وخيم وخيم يوي رك ولو تريك القطا ليلا لنام ديسان aw ay nekk am na loo xam ne ku ko donn donn la ca des am na loo xam ne ko donn donn la ca des mag ji waxtaan ak ñoom soxna Fatima ak ñoom yaayam yile ak bokki boppam yile ñoom aja lisan soxna ndey kumba ngi nii toog lisan may docteur Maïmouna ngi nii ci biir santé waaw ñu toog ma wax leen ko waaw moo tax rekk waaw ah. doomu jaamur la san dama nekk ci prison biñ may soog a arrêté ñaari fan xaw ma ñett soxna yoon yónni ndaw ni ko bu ngeen demee ni mu saf ni ko duma ko seet si ndax bu ma ko seet see salit lay doon ndax dégg naa ni soxna Astu Kan bi ñu jàppee Serigne Cheikh moom it loolu la waxoon ni duma ko seeti ndax bu ma ko seetee mu nuru saalit waaye dinaa toog fii moom soxna sukkan mooy wax ci sama sajaada maa ko moom jublu penku ci barke baayam ma ko bu ñu jëloon Cheikh Tidiane dugal ko ci gën dëbb ko ba mu mokk dana jógaat taxaw ñëw fekkaat ma fii moom soxna su kon moo wax loolu soxna sa kon nag sañ naa taasu ci barkeem kon nag nee leen mu saf duma ko seet si may itam ah, waaw ba keroog ba ñu génnee dañoo fekk ko ca saal ba te njaboot gi mel ni dañ leen a kaata ah, ba man sax xaw nañ ma daaneel xamul li leen doon yëngal lan la waaw wa soxna Asimi ndeysaan keroog mu ngi fekk mu girib sax waaye itam dafa bàyyi yëpp rek daal di ñëw mu mel ni yooyu nag mooy leçon yi bàyyi xel taam ci taxawaay moo ko nettali ñoom soxna Fatima yi ca waa kër Alaaji Njaase ca Jobaas keroog bi ñuy jël dynamite mi pour dynamite jàkk ji di gas di gas pour dugal dynamite bi xoolal loolu pour bëgg a jàkkay sëñ Babacar moo lay xamal ni tëj giñ koy tëj léegi am na fu mu commencé waaye bi ñuy dem bay dugal dynamite bi rekk séeréer ba tudd fifteen te jobaas moo taw yi fettam nas ko waa ji fii ci loxo mu yooxu daw bàyyi fa dynamite ba ñu ñu récupérer dynamique ba indil ko Serigne Cheikh seng ya mujjoon nekk bu jëkk ci réew du sëñ Babacar ñaari trou moo nga ca woon te fekk bal yi tubaab yi dóor jëmale ko ci réew du sëñ Babacar la Serigne Cheikh ni bu ko kenn changé parce que souvenir d'histoire la Hmm.